Mathia Diagne euh, kuréel gi ëmb opérateur muy doomu aadama yëngatu ci wàllu njaay ak njëndum gerte ña ngay yëglu seen i kàddu lañ yëkkati euh, di sàkku daal ci kilifa yi ñu xoolaat décret bi soxal wàllu bâtiment euh, jot na daal ñu xoolaat ko ndax ci jamonoy Blaise la woon ci biir xibaatam daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam moom lañ ci rotal bu njëkkoon mag ñi dañu daan dàmp korité karité kon la ñuy jël boole koog tullu kon ak yenn xeetu garab yi di ko dampe euh, waaye tey ji loolu dafa mel dafa war ni euh, ñu ba daal dañoo xóot euh, massé utile ji li nga xam moom moo di massage moderne bi ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg reportage nga xam ne ni soxna Mamou Diaby Gassama def na ko fa bon mbokk yi lii daal mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum bisimilah ci xibaar yi gannaaw ba ñu ko tàmbalee ni kii ñaar fukki fan ak juróom ci weeru sanwiye wi ñu génn armée bu Sénégal euh, mënees nañu wax ne raxas nañu daanaka àll Casamance bi lee euh, ndax bari na ci ay dëkk-dëkkaan yoo xam ni wooy fipp MFDC ñoo ci tegoon loxo waaye tey ji euh, ñii di l'armée bi daal nangu nañ ko seen yoxo nanguwaale seen i gànnaay la fa nekkoon ci toolu yàmbaay yëpp daanaka lakk nañ ko lien na colonel Mathieu Diogoy Sène am na ci ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci micro Amady Khalil Diémé opération bi comme ni ko commandant de zone moom nuñ ko tàmbali le vingt cinq janvier passé donc sama batayon moo nekkoon ci kanam pour jël si euh, base bi ñuy wooyee Badion donc fii ngeen nekk nii moom moo nekk bajon donc euh, jël Badion jafewuloon ci pour ñun amoon na quelques résistance mais comme ni ngeen ko mën a xoolee donc récupérer nañ base bi ci ay ay heures yu néew donc euh, récupérer nañ fii ay armes ay njumtuwaay Euh, yi nga xamante ni mooy li jëm li jóge ci canon yu mag yi ba ci euh, munition euh, ba ci canon yu ndaw yi donc récupéré nañ ko fii récupéré nañ fii aussi ay seen jumtuwaay yi ñu doon utiliser pour déplacer wu mooy comme ay charrette ay moto jakarta ay vélo donc loolu yëpp récupéré nañ ko fii fii nag li gënoon a am solo fii ci seen liggéey moo nekkoon dañ doon yëngatu ci mbirum drogue donc muy yamba bi donc fii moom daanaka mun na wax ne lu fi gën a bari ci euh, ci seen activité moo nekkoon bay yamba donc fii soo xoolee am na fukki tool yu ñu lim fii yoo xam ne vraiment am na yu xam ne yegg na ay hectares am na yoo xam ne motul hectare quand mais au moins euh, yamba bi daal màgg na donc loolu moom na nekk li nga xamante ne ni moom laa fi mun a yokk pour mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di Lieu Nassa Sané kon seen kon mu doon àddu jëmale ko eh, ci opération bi nga xam ne ñu ngi ko tàmbale woon amal ni kii ñaar fukki fan ak juróom ci weeru sanwiye eh, ci àll Casamance bi dee eh, kuréel gi ëmb opérateur muy doomu aadama yëngatu ci wàllu njaay ak ngirnum gerte ñi ngay yëglu seeni kàddu la saako ci kilifa yi ñoo xoolaat bi nga xam moo soxla wàllu abattement jot nañu xoolaat ko ndax ci jamonoy Blaise la woon ndaje nag mi doon amal occasion la woon ñu daal di ñaawlu taxawaay yenn opérateur yi jël seen gerte gi jaay ko ñu dëkkul ci rée mi mi bàyyi fi waa Sonacos Mor Batilo moo yëkkati kàddu yu ni mel ñu teewlu ko ci micro Omar Kayre. décret boobu moo moo sonal opérateur yi sonal ñi jaay gerte c'est-à-dire décret boobu depuis 1960 wala 61 la fi nekkoon donc décret boobu ñi nga xam ne dañoo nekk ci filière bi di yëngu ci gerte gi di yóbbu usine war na ñoo mën a daje waxtaan balay campagne bi ubbi ñu xool waxtaan ak ministre de l'agriculture waxtaan ak Sonacos président jot ci ñu mën naa xool décret bi euh, ba man fee tegaat leneen lu wuuteeg li fi nekk ndax li fi nekk toujours muy indi ay jafe-jafe muy indi ay indi ay coow. jafe-jafe yi mooy abattement excessif bi ngay am abattement ni ni ñu koy seetee mooy camion bu chargé dañu jël dañu jël ñaari saak ci kaw ñaari saak ci digg bi ñaari saak ci muy six saak loolu mooy échantillon échantillon boobu lañuy ñuy peser ko diviser ko poids échantillon boobu impureté boobu taux boobu ngay eh, constaté mooy abattement. parce que abattement dafa fumis man nga indi camion di du dix tonnes par exemple nga perte cinq cent kilos. ñi nga xam ne nag dañoo ne ci yenn rajo dooni opérateur nu benn kuréel benn région benn fédération ñu ëmb région yëpp ah am na ñuy kaddu yu ñu yëkkat yoo xam ne nañ seet seen kaddu yi ndax bu ñu mu ngi wax loolu day kàddu yoo xam ne ni ñoo ngi ko nangoo ci kiir mu di Mor Bati Lo ñuy wax ci wàllu tolérance zéro gi nga xam ne ni njiité a càmbarandoo jafe yoon euh, saafara si nga xam ne ni euh, moom lañ ci mën a indi euh, Mor Sourang mooy njiital fédération boobule am na ci ay leeral yu mu indi ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo c'est pas parce que dañuy renouveler oto yi accident yi jeex dama jàpp ni dañu war a am un laboratoire d'accidentologie mën a xool accident yi lu koy indi ñu indi les causes réelles mais de toutes les façons le transporteur et le chauffeur c'est les parents pauvres de la République lii ñu wax nag ci renouvellement wu oto sama me fait froid au dos et damay jaaxle bu ma gisee sax acteur yi di ci kontaan acteur bi nga xamante ne nag pendant plus de cinquante ans moo yor boppam di ko doxal société ya mu daan jaar muy Sonaga ak Sogeka tëj ndax jëndatuñu oto li war du jox ko oto mais da ngay waxtaan ak moom xam lu tax joxeetul oto nga renouveau nga restructurer secteur xam nga tolérance zéro fa diis ci man ki nga xamante ni dafa xamul ñoom parce que jàpp nañ ñu ni ñun la dama yaakaar ni da nga ko war a former ba mu xam mu xam bu defee accident li ko ciy fekk kooku yaakaar naa s'il est prévenu doxul ci tali bi pour rey boppam transporteur bi jëndul oto pour yàqu suñ ko ko defalee dana man a am formation bu baax man CETUD ba mu juddoo ba léegi ci ñu mas di kaas ni dañu ni c'est un établissement privé à caractère professionnel gisuma loolu kenn du ci transporteur te ñetti transporteur dafa nekk wala ñaar ma jàpp nag ni yàgg nañoo wax ni ne le président nekk un acteur mais centre d'enfouissement des transports urbains de Dakar avec le BRT xam naa nag bu ko waxee dana jaaxal ñu bari mais li ma ci wax mooy c'est un projet en bi président Ablaye Wade gisee ni il y avait une évolution démographique non maîtrisée ki la mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di Mor Sourang assemblée nationale jotee fa jamono ji doon lu jafe mbooleem yoon yu xotti utili fa ah, takk der yi kan dañu kat jamono ji kaaraange gu mat moom la ñu nemmee ko ci pencum ndawi réew ma li ko bokk na ci ndaje mi ndaw yi seq bureau eh, pencum ndawi réew mi war a amal tey ji ngir saytu ku càkkute fa procureur de la république te moo di ñu muri mbalaanu kirlaayu eh, député Ousmane sunko lu jëm si xibaar bi eh, daañ ci jël sax incha allah rabbi ak suñu naatango Abdou Khoudous Diallo ma fa yebal jamono ji Euh, mouvement Y'en a marre lëkkaloog waa mouvement FRAPP dégage ak waa FDS ña ngay sàkku ci mboolem kilifa diine yi nekk ci réew mi euh, ñu jóg wax ak njiitu réew Macky Sall delloosiwaat ko te mu xam ne ne euh, nguur daal yàlla moo koy joxe dañu duñu nangu mukk nag muy sukkandiku ci problème boo xam ngi dox ci diggante ñaari citoyen mu bëgg a ceeb porox ndoolu ngir fagagal menn opposant bi réew mi desee loolu daal la wax ne du ko nangu te lu mu ko jaral nag jaral ne leen ko ndaje sax mi ñu doon séq démb ak taskatu xibaar occasion la woon ci ñoom ñu daal di sàkku daal ñu bàyyi ndaw yi nga xam ne ni euh, ñoom la ñu euh, tegoon loxo ci manifeste yi ñu doon amal niki altine ji ñu génn ndaje moomee Serigne Gueye lañ fa yebaloon njiitu parti Pastef Ousmane Sonko ñu tudd ko ci mbirum siif frappe France Dégage FDS les Guelwaar ak mouvement Y'en a marre njortu ne ak sànq la guñu ko naral ci wàllu politique moom boo càmbaree ay stratégie dafa jël li nga xamante ne Sénégal moo ko moom muy suñu appareil judiciaire muy maanaam suñu kuréel bi yore yoon def ko ab yatam di direk dóor képp koo xam ne bokk nga ci kuje gi ndax buggul kujje ndax ñemewul kujje seetlu nañ kaawu kii di euh, Karim Wade seetlu it kaawu Khalifa Ababacar Sall waaye lu tax tey nguurub Macky sàll bëgg a profitoo ci benn affaire boo xam ne ñaari sénégalais la ñoo jote kii jiiñ kii ñu bugg cee profito fexe ca naka lañ ca mën a def ba éliminer ki nga xamante ne nii candidat la leaderu parti la maanaam aujourd'hui ku mu neex ku mu naqadi ku bëgg ku bañ moom moo sol costume chefu opposition. xam leen nañu it ne. fas nañu yéene taxaw ci kanamu président de la république Macky Sall mi ñu jàpp ne dafa bëgg a dugal réew mi ci guut ak dictature. xam nga fi ñu toll ak Macky Sall lan la wure ba dem na këng wax mag kese la jàkkaarloo moo des jàkkaarloo nag anam bu ne la bi ñu sabab bi ñu sabab bi ñu am yéene mooy bi ñu woo suñu ay guide religieux ñu dem wax ak moom mu nekk nit mu bàyyi li mu nekkee bañ a taal dëkk bi bañ a yàq Sénégal booboo ñu gënal bu ñu joxul boobu bu ñu indil ñu jël. geneen kàddu gu ñu yëkkati mooy bëgg-bëgg bu ñu am ngir ñu bàyyi juróom fukk ak benn ndaw yi ñu ne jàpp nañu leen ci fan yi ca ba ñu doon jàppal tànk kii di Ousmane Sonko. na lu tollook cinquante et un personnes ay jeunes ay ndaw yu ñu jàpp ci ay manifestations yoo xamante ne jàpp nañ ne police moo leen provoqué ndax ay partisans lañ ay Sénégal lañ ay sympathisants lañ yu dem seen bërëb taxaw fa ñu fekk leen fa cokkaas leen. indil leen jafe-jafe ñu ngi nii tey ci kaso bi ñeneen ñi ne ñu ngi leen di torturer nañ leen bàyyi ñu dem ñibbi seen i kër. ci fàttali ñetti kuréel yi xam ne dakkaloon nañu ñoom ñëpp seeni activité ca collectif ñoo lànk daal dinañu bokk jotaay ci dalwaayu FRAPP France Dégage fa ñu doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi. jërëjëf Serigne Gueye ñu ngi lay sant di la gërëm ñu fàttali leen ko juróom fukk ak benn ndaw yooyu li nga xam euh, a mujjee déféré fële euh, yu diis daal la ñu teg ci seen kaw ndodd lu jëm kon ci xibaar boobu lee incha allah rabbi daañu ci dellu siwaat euh, ca Sédhiou la ñu jëm askan wa mobilisé nañu doon benn dànk ne duñu nangu mukk ñuy muuri malaanu kiraayu député Ousmane Sonko ñu ngi nag sàkku ci njiitu réew Macky Sall mu xoolaat taxawaayam te xam ne lu mu baax moom ñoom noppi nañu ngir ñeer ko Souleymane Diallo moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Lamine Bayo. kenn tey pour xamal nguuru Macky ak ñëpp ñu nekk si nguur gi ak ñëpp ñu nekk si ginnaawam si complot bi nga xamante ne kenn kenn lam-laameewu ko feeñ na si kanamu ñëpp xale bu nekk CI eh, eh, wala bu nekk maternelle boo ko laajoon lan moo xew si dossier Ousmane Sonko bi mu ne la lii benn benn complot la politique moo si lalu donc ñun tey gannaaw buñ gisee ni même ki nga xamante ne moom moo nekk au cœur de la chose mooy ku dem déposé plainte bi mooy mbokkam yi saa si seen bopp génn nañ ñu xamal ni ñii ni moom lu mu nekk di def wu ko saa si xelu boppam benn dañ ko manipuler mais ñaar moom saa xamul sa lu mu nekk di def mbokkam yi setal nañ Ousmane Sonko borom salon bi setal na Ousmane Sonko kon ñun dañoo jàpp ni procès sax procès sax ñun gisuñ fan la procès mu ne am ba gannaaw bu député kii avocat ci yokk mooy député bi nga xamante ne légalement lañ ko élire fii dans une élection législative de 2017 ñun duñ nangu ay caaxaan tax ba gars yi di ñëw di ne dañuy nëbbee nguuru Macky Sall gannaaw bu ñëpp gisee ni ñoom ñoo nekk si ginnaaw lii nii lépp li nga xamante ne ñoom baax nañ ko ñun dañ koy ngeer si crise bii nii mu nga wax loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi nangoo ci kii di Souleymane Diallo ci université Gaston Berger ba ca Ndar ndongo ci parti Pastef ñoom it ña ngay sàkku ci kilifa diine yi ñu génn wax ak njiite réew Macky te moo xam ne ne nguur yàlla ku koy joxe lu mu ko jaral nag ngir tëj Ousmane Sonko jaral jaral leen ko lu ko raw ngir génne ko ci kaso boobulee Moustapha Dramé moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbier lan la ñuy wax léegi mooy ndax théorie du complot la wala théorie du complot kon li nga li nga woon ci affaire yi échoué ci boor boobu échoué nga ko ci kon nag tey ji lu ñuy ñaan mooy ginnaaw affaire yi c'est privé bàyyil affaire ñu ñu réglé ko en privé ki nga xamante ne nag mooy Adji Sarr ñun ñu ngi lay wax ne ginnaaw yaa fi sombi lii nag na nga ko daan ba mu tak yaa ko sombi na nga ko daan ba mu jeex tak da nga bokk ci procès bi bul dem fen yaa ko woote na nga ñëw ñun xam nañ ne carrément lan la askan wi dund tey ñëpp xam nañ ne tey jii Sénégal dafa am problème ci bopp yëpp ci boor yëpp tey jii ñun ay ndaw bu ñu demee ba dégg ne étudiant jël na gaal dem ci dem dem dem Espagne kon yaa xam na ne réew mi doxul waaye nag doxul boobu na dafa am ci ñun doxulee mooy tey ñii nii ñuy fas yéene noot seen leader mooy la population. te ñu bëgg wax président nag que ni amul problème ak Ousmane Sonko ñi mu amal problème mooy la population sénégalaise. te Sénégal ku fi di jullit yaa ngi nekk ki nga xamante ne ni mooy chrétien ñu ngi ñaan ñoom ñëpp parce que gis nañ ne situation bi léegi dafa dafa dafa désordonné dafa dafa dafa dafa dafa dafa kenn mu c'est incontrôlable en fait. kon ñu ngi ñaan suñu kilifa diine ñu ngi leen ñaan rek ndax ñu seeni doom leen boo leen waxee ñu ñu def lépp loo leen wax dañ koy def te ba suba ba ginnaaw suba lépp loo leen wax incha allah daañu ko def waaye ñu ngi leen di ñaan ngeen génn ñaan comme ni nga xamante ni noonu ngeen ko faral di di leen defee ñu ngi leen ñaan ngeen génn wax ak le président Macky Sall ne leen ko mu bàyyi doomu jàmbur ji Sénégal li moom yaayam Sénégal la papam Sénégal la moom tey jii may nañ ko véritablement chance am ñëw ba ni jiite réew mi kon na may bépp sénégalais mu am droit boobu Bissir fa la ñu jëm foofu la fekk baax moom Ousmane Sonko ma nga nekkee ci commune ñu kàcceeg nekk foofee ci diwaanu Ziguinchor askaro ñoo mobilisé doon benn dànk eh, di ñaaw rek singali gi Macky ak nguuram singali seen doom ji di Ousmane Sonko eh, bët nag bu rusul toj te luy jot na nag jot ndax te luy jot na te luy jot kon jot na gannaaw dee Macky Sall dina bàyyi Ousmane Sonko ci nii mbaa ci ne Aliou Camara moo yëkkati kaddu yu ni mel ñu teewlu ko ci micro Amady Khalil Diémé. mooy fii bi ñu naan Bessir. mooy xew-xew bi nekk ci réew Euh, complot loolu wóor nañu li tax ñu ne complot la boo jëlee li xew-xew yi ci ginnaaw mooy ay euh, radiation dàq bi ñu dàq Ousmane Sonko ci fonction publique euh, ay policier wala ay gendarme ñi wàcc këram ci Ziguinchor ak këru Seydina Badji rey gu ñu rey sunu sœur mi nga xamante ne mooy Mariama Sagna menace bu ñu menacé pour naan dañuy tas parti PASTEF ginnaaw bu ñu defee euh, nemmeeku tour bi le 2 janvier moo xamante ni may na parti bi xaalis loolu yëpp boo ko saytoo dara waralu ko lu dul faagaagal koo xamante ne nit ñi yaakaar nañ ne moo fi war a wuutu makisal waaye ci loolu ñun ñëpp war na nekk suñu xeex moo tax may profité ci occasion bi ñaax kenn ku nekk ci ñun du xeex diggante Pastef ak euh, waa Benno Bokk Yaakaar wala waa kër euh, euh, par kër Macky Sall mais xeex bu ñuy xeex mooy système bi mi nga xamante ne Macky Sall moo ko moo moo ko fi yor mu jub ñu bëgg koo jëlee fi mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di Aliou mbir mbiri dàmp sax moo waral coow li mu soxal kon Euh, Ousmane Sonko ak Adji Sarr loolu nag may ñu tey ji ñu amal ab gëstu jëmale ko ci wàllu damp ak na nga xam ne ni ah, noonu la ko mag ñi daan defee karité ah, lañ daan jël boole ko na ak yenn xeetu garab yi di la ko damp ba boo noppee sax ba sangu ba sol sa yére ah, daanaka daal dootuñu yëgati dootoo yëgati dara daal ci sa yaram xale daf koy def jigéen ju wéru te mag ñi naka noonu maamu jaabi gasama nag doxantu ji woon na ca Parcelles Assainies ci njabootu si sekunda yi ak Diatakunda yi di ñu xamleeg damp yi fi maam yi bàyyi woon eh, te ñoom tey jii ñu di ko def Mamour Diaby Gassa Konkone Ibou Guèye reportage. la nga xamante ne moom lañuy def ci tout tànk bi moom la ñuy wax damp fii ci même réew. dàmp baax na lool ci wéegu yaram doomu aadama bi muy liir mag ak ndaw ñoo ngi fii ci njaboot Cissé Kounda yi ak Diatta Kounda ca Parcelles Assainies. femmes yi dañ leen di suivre dès la grossesse. dañu dem ba accoucher. bu ñu accoucher ba pare dañuy indil xale ñu leen di dàmp pour yaram bi yëpp mën a bàyyeeku. dafa baax ci bébé bi day tax bébé bi day am bonne santé. li ñu mel ñu donnoo ko ci seen maam bu ci génn soxna yi bi li liggéey dañ koy def ak cawarte bool ci sax ñi daal ci dëggal seeni bopp bu baax a baax. damp bi c'est c'est africain. donc massage ñun damp bu ñuy def pour femmes yi accouché la ak bébé yi. ak mag yoo xam ne seen yaram dañuy metti dañuy amee ay courbature même bu dul accouchement boo ñëwee nañu suñu yaram day metti dañ lay daan yaram buy metti sama ndigg bi dafay metti sama ginnaaw bi dafay metti leen di bu baax da ngay dégg yax yi mu ne karaj karaj karaj karaj am na ñoo xam ne fii moo dal seen xel traditionnel bi moo dal seen xel am na ñoo xam ne moderne bi moo leen moo dal seen xel ku nekk ak sa choix la. ku yaramam di métti boo ñëwee dañ lay dàmm nga am jàmm ku dàmm nag dañ lay yebal hôpital ndax liggéey bu nekk ak liggéeyam la ku nekk ak sa liggéey la. suñu massage yu maam bi mu ñu fi bàyyi la moom la ñuy continuer du métti du métti parce que xam nañu nu ñuy bësee nu ñuy bësee mag ak xale ak góor bokkul. karité tulukuna ay xob yooyu dañuy jëfandikoo ngir mën a faj ña nga xamante ne mu ñooy ñëw ci ñoom na baa ngi ne karité baa ngi fii donc ku nekk euh, moom la ñuy utiliser ak ay plante plante yi nag dañ koy baxal gis ngeen kin baa ngi nii dañ koy baxal moom la ñuy jël ñu dàmp leen ak karité mu ñëw gunge ab doomam ba nga xamante ne dafa woonu lor Fatou Sène mbégte ak kontante rek la am ci anam ba nga xamante ne moom la liggéeykat yi di def ci lu ñeel wàllup dàmp man sama doom laa fi gunge waaye moom saa yi nekkee jigéen fii lay ñëw fii lay dàmpoo fii lay jëlee ay garabam ba yàlla may ko jàmm fii lay ñëwaat indi doomam tam dàmp moom wax dëgg yàlla dafa baax ñun dàmp la nga xam mooy dëgër sunu yaram moo koy naayil moo koy defar yéen tàng lool ndax ay yëngu-yëngu dàmp ab aadala ba nga xamante ni yàgg na lool fii ci Afrique te kenn ku nekk mun nañ la dàmp ndaxte li mel dafa baax ci jëmm nit ki bool ci sax day tax mu ànd ak li di ca waxte jaajëf soxna Mamou Diaby Gassama ñu ngi lay sant di la gërëm ñu dellu wax ci kàddu yi nga xam njiite réew Macky Sall yëkkati woon na ko fi lu yàggul dara ci biir conseil des ministres di sakuraal ñu xoolaat xibaar yi nga xam lu ñuy jàllee ci internet bi bu laajee sax yu ñu yoonal ko nañ ko def loolu nag jur na ab waxtaan tey ci askan bu ñenn ñi jàppeen loolu lu baax la ñeneen ñi ñoom gisuñu lu ni mel loolu dafa bokk ci pexe yi mu tër rek ngir gën a askan wi lee aji ku na jéy Mami Kanté reportage càmbar réseaux sociaux yi bokk na ci bëgg-bëgg njiital réew mi Macky Sall ñaax na ay njagañaaleem ngir ñu taxawu si wante dogal bile am na si ñu mu neexul. parce que dañ ci am droit quand même mais il faut pas tam moom bu boo. naan dafay dindi lu bon li ba pare boog ñu xañ suñuy liberté ak suñuy droit duñ ko nangu ah. parce que tam dafa am wala ñu am wal ku ne daal na nag du bàyyil walam comme que moo jiite koy ne dindi lu bon li mu bàyyi lu baax li mais mu bàyyi ne ak li moom. lu ni mel Basiru jàpp ni porox ndoll la ngir noot gis-gisu sénégalais yi. bu fekkente ne lu baax la si jublu man d'accord naa ak moom parce que lépp loo gis dañ koy segg gën li si baaxul ñu dindi ko li si baax ñu jëriñoo ko mais xam nga man leen rek laa ci ragal quoi comme comme moom dafa bëgg a maîtriser lépp mu fexe rek ba mu bàyyil li ñu am ñun population bi mu bàyyi ñu ak seen indépendant képp koo xamante ne bëgg nga wax sa soxla nga wax ko lu naqari nga wax ko ca rond-point lañ ko fekk Omar yaakaar na ni sudee ngir tàggataat doxalin bi ci réseaux sociaux yi lu ñu war a rafetlu la baax na parce que en fait euh, nekk lu waay am euh, comme opinion soit négatif mu wax ko foofu noonu parce que réseaux sociaux yi ñëpp a koy suivre bu demee ba ñuy joxe yenn information ci biir réseaux sociaux yi na nekk information yoo xamante ni fiable la. bu seen information boo xamante ni day soulever euh, yenn yenn fitna ci biir réew dañ koy war di daw waaw si instant bi pays bi dafa suñu suñu réew mi dafa dafa laaj stabilité dafa laaj dal. kon ça veut lépp loo xamante ne ce sont des mauvaises idées ñun en ce moment là ñun soxlawuñ ko. man dañuy dañuy am tendance di wax liberté liberté liberté liberté du nekkul euh, loo bëgg a wax rek nga wax ko nekkul lu nekk sa xalaat nekkul sa xel rek nga wax ko liberté bokk na tamit looy wax na nga ko teg fu wóor te man boo ko waxee na am njëriñ. ci ñi nga xamante ne ñoom ngay euh, ñoom ngay amal affaire. Ndongo jàpp ni am na leneen lu soxal sénégalais yi toog ci scooter am xel mi sori loolu moom lu ko soxal mooy nguur gi gestu jafe-jafe yi doomi aadama yi. instant yi moom lu ñuy dund métti na surtout ñi nga xamee ñuy liggéey gudd guddi métti na si ñoom te dama yaakaar ni président bu dee ba nekk président. askan wi fol ko war na am si ñoom yaramande bu baax mais dafa am la nga xam ne su ko dee appliqué bi na koy ñàkk a yëg mais ko yëg te loolu dama yaakaar ne war na si mën a am gëstu. di koy doxal di ko liggéeyal ñu am na am ak ñoo contact ñu koy wax lan mooy dox si dëkk bi lan mooy métti nit ñi mu koy xam fii ci Sénégal nemmeeku nañ fi taxawaay bu am solo bi réseaux sociaux yi am ndaw yi bokk ci ñu koy gën a jëfandikoo rafetlu ñu benn yoon bila dogal bi nguur gi tëral ñu bari ci sénégalais yi ñu dajeel jàpp ni lu ñu ci jublu mooy tënk nit ñi. Aji Kouna Dieye ñu wax ci tolluwaayu mbas mi di Covid 19 ñaar fukki doomu adama ak ñeent ñoo ñàkk seen bakkan ci mbas mi eh, di Covid 19 kon ci diggante démb ak ci diggante ñaari fan yi eh, bu ñu sukkandikoo ci docteur Mamadou Ndiaye ci ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk eh, benn fukki test yi ñu jot a amal démb ñetti téeméer ak juróom-ñeent ñett ñoo dellu si amee feebar bi juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent yi di ay cas communautaire di ay cas contact Euh, ñetti téeméer ak ñeent yi di ay ka communautaire euh, juróom fukk ak juróom benn ñi tëdd lalu hôpital ñuy sauvé kon fukki doomu adama ak ñaar